contexte bi ñu nekk xam nga Sénégal ñu ngi jublu nag ci ay élections élection euh, présidentielle ñu bëgg mu am ci jàmm ak salaam ak ci dal euh, yàlla def nag ñu am am chance am njiitu réew bu mat sëkk li mu doon euh, président Macky Sall nga xam ni moom biñ ko falee ba léegi 2012 noppaluwul tàyyiwul ci liggéey luy jëmale Sénégal kanam. ñun ñëpp analyser nañu PSE euh, discuter nañ ci tey si tey ji wax li mu réaliser yëpp bare na nañu ko wax lépp boo jëlee énergie déjà lim ci def 500 mégawatts la fi fekk tey jii xam naa ni sorewuñu mille mille sept cent mégawatts wala ñu dépassé ko euh, li mu def ci infrastructure ci autoroute yi 32 kilomètres 2012 mu ñëw ba léegi euh, dépassé nañu ay 200 kilomètres d' il dont Ila ba Euh, li mu def ci wàllu voirie li mu def ci wàllu semaine de fer li mu def ci wàllu port li mu def ci wàllu aéroport li mu def ci wàllu pont li mu li mu def ci wàllu autopont euh, yooyu yëpp dafa doon loo xam ne yu am solo la li mu def def ci njàng mi def ko ci éducation def ko ci enseignement supérieur euh, def ko ci filets sociaux yi nga xam ne ñu new doole yi bourse de sécurité familiale couverture maladie universelle carte égalité de chances Euh, li mu def ci mbay mi li mu def ci càmm gi li mu def ci napp gi ci napp gi ñëwaat naa ak ñoom sax wax leen ni mais dañuy dégg toujours ñu naan dañoo jaay géej gi dañoo def lii loolu dara amu ci ndax Sénégal boo xoolee dëkk yi ko wër euh, nga jaar jóge Maroc jaar Mauritanie jaar Sénégal jaar Gambie jaar gine bissau ba ba ngay continuer dem ba Guinée euh, protection bi ñuy def état Sénégal di ko def ci géejam du ma ni ñeneen dëkk yi defuñu ko mais eggaguñu foofu ndax président li mu def ci quai de pêche yi deux 2009 2012 9 quai de pêche juróom-ñeent quai de pêche moo amoon président tabax na lu lu mat 11 quai de pêche euh, durant li mu fi nekk euh, li mu def ci ay air de transformation benn président masu koo def euh, képp kuy jënd moteur ñu jox la un million loolu dañ ma wax benn dëkk moo koy def fii daal ci ci dëkk nappkat yi ku bëggul jàppale napp gi doo def loolu jël un million nga jënd moteur bu jar un million trois cent cinquante mille wala un million quatre cent ñu jox la un million gratuitement man maa ngi fàttaliku bi ma nekkee ministre de la pêche cinq mille moteurs def joxe nañ ko muy cinq milliards yu président génne euh, jox ko nappkat yi gilet de gilet de sauvetage yi euh, vingt mille gilets par an te ñoom ñu ngi ko daan jëndee euh, juróom-ñetti junni président ni non nañ leen ko defal juróomi juróomi juróomi téeméer deux mille cinq cent donc loolu loolu loolu ku bëggul jàppale sa sa sa sa sa nappkat doo ko def moteur euh, essence bi ñuy lakk at mu jot quatre milliards la état bi jël subventionné leen pour ñu mën a jënd essence bu yomb pour dem ci géej gi donc loolu ku ko ku bëggul sa pêche doo ko def mu voteloo à l'Assemblée nationale une loi euh, en 2015 loi boo xam ni dafa protéger pêche artisanale jël ay daan yu mag teg ko ci ñi nga xam ni ñoom la def pêche bi nga xam ni mooy pêche INN mooy pêche euh, la pêche euh, illégale non déclarée non réglementée donc loolu def na ko également ci biir pêche bi jël xaalis bu bare jox mareyeurs yi pour ñu am ay euh, camion frigorifique loolu te également président Macky Sall def na ko maintenant li des mooy secteur boobu dañ ci war a waxtaan bu baax a baax je suis man dama d'accord ne secteur boobu war nañ ci waxtaan waxtaan ak nappkat yi ndax boo xoolee Sénégal rek mooy réew boo xam ni ñaar fukki junni euh, euh, gaal moo fi ne loo loolu dafa bare dafa bare parce que géej dafa am lu mu àttan ak lu mu àttanul te loi bu bees bi ñu voté woon en 2015 dafa am ay distance yoo xam ni foofu pêche artisanale bi rek moo am droit dem fa fi gën a sore nag la ñu yóbbu ñi nga xamante ni ñooy def pêche industrielle parce que pêche industrielle aussi dafa baax ci réew mais bateau pêche industrielle yi Sénégal am boo ko comparé ak yeneen dëkk yi yeneen dëkk yi ñuy séq fii la gën a néewee ndax dañoo protéger pêche euh, euh, pêche artisanale fii par exemple Sénégal benn kii rek la am benn accord de pêche rek la am ak Union européenne ak ci benn espèce ñu koy wax le temps rek ak tuuti merlu merlu sax ñu bare xamuñu muy loolu luy loolu parce que daanaka sax duñ ko lekk Sénégal te pêche boobu ton boobu li ci ëpp mooy pêche artisanale bi du egg ba foofu ndax dafa xaw a sore moom la ñuy wax euh, les pélagiques hauturières dafa sore donc loolu euh, président Macky Sall daf ci taxaw taxaw bu mat sëkk ñu dote suñu marine bi ak ay ak ak ak ak ak des patrouilleurs haute mer nga xam ni képp ku def pêche boo xamante ni jaarul yoon ñu arraisonné la xaw ma nag ngay nëbbatu di ko def fekk jàppuñu la mais bu ñu la jàppee daan yi ñuy teg sa kaw euh, am na doole doole boo xam ni xëy na bés bis ñu la ko tegee nga fay ko dootoo ko defati donc ñu ngi protéger secteur boobu mais dañ ko war a waxtaanee waat nag maanaam acteur yëpp gouvernement bi acteur de la pêche ñoom ñëpp ñu toog ñu waxtaane ko pour xool exactement yan réforme parce que jamono buy dox dafay laaj ay réforme yan réforme la ñu war a def ci secteur boobu pour que euh, mu gën a amal njariñ askan wi bien que mi ngi leen di amal njariñ Euh, wax naa leen léegi nii ni ñu protéger suñu pêche artisanale fii amul benn dëkk bu ko xamante ni def na ko dans la sous-région. donc yooyu waxtaan nañ ci nag après jublu nag ci li nga xamante ni mooy liggéey bi ñun ñu ngi ci biir parrainage bi bu a baax parrainage citoyen parrainage boobu nag la ñu bëgg chef de village yeeg imam yeeg notable yi notabilité yeeg conseil yi nga xamante ni euh, ñoom ñoo fi toogal aada ak cosaan ñu dugal ci seen loxo ak ndaw ñi moo tax kuréel yi ñuy commencé waxtaan kuréel par kuréel. Euh, lancé nañu suñu parrainage à l'échelle départementale on a demandé a chaque commune mu lancé ñi ngi ci gis ngeen dans le département communes yi commencé nañu di lancer seen parrainage mais dafa am kuréel yoo xam ne dañu am solo imaam yi dañu am solo pour ñun chef de village yi ak euh, ñi nga xam ni ñoo yor euh, cosaan ak aada ñooñu nag la woo woon tey pour waxtaan ak ñoom te waxtaan wax dëgg yàlla aw na yoon rafetlu dañ ko lool lool ñu gërëm le chef de village de Sangalkam muy El Hadji Diouf nga xam ni moom mooy porte-parole association nationale des chefs de village ba pare jiitee l'association nationale des chefs de village au niveau régional moom it ci taxawaayam bu mat sëkk bi nga xamante ni taxaw nañ ko ci suñu arrondissement ak suñu département